ce débat-là se pose encore. mais non c'est l'opposition qui le pose. mais c'est non, pas, pas un débat de l'opposition ci critère de candidature benn rek benn point moo ci différencier président sortant des autres c'est-à-dire foofu danañ vérifier ñaata mandat la ma sàmm est-ce que c'est mandat Sonko loolu rek moo leen mais les autres critères ils doivent le respecter. mais bu fekkee xam nga y a un aspect politicien politique mooy. débat sur troisième mandat loolu c'est politique l'aspect légal et réglementaire ñu xool ko foofu la waxee ba mu ne ko bu mu ne Mansour bu ne les ñu wax le règles du jeu man les règles du jeu sont claires Amadou l'a rappelé il y a deux règles principalement c'est la constitution article 29 beneen bi mooy le code électoral code électoral ñu ne ah, L 121. et l' bi mu ngi ci biir article L bi. Euh, non je parle pas de L. de la. la constitution d' accord naa ci xam nga li ma wax ni dama ni les critères qui doivent mener à la candidature. article 27 bi ngay wax mu ngi ci biir article 29 nit da dégg-dégg si loolu nag ñu décliné ko constitution bi du mën a régler lépp constitution bi dafa renvoyé au code électoral. code électoral mu yónnee ko ci article L vingt cent vingt et un L article L cent vingt deux ak maintenant R soixante seize R soixante dix sept ak R soixante dix huit loolu lu mu wax bu fekkee ni règle la foofu la ñu war a tënku ci règle leneen li sa côté politicien te règle dafa ne pour déclarer une candidature c' est soixante quinze jours au plus et soixante jours au moins avant la date de l' élection c' est pourquoi on sort un décret on fixe la date de l' lu tax loolu c' est pour pouvoir respecter ces délais là bu ñu waxee ces délais là ce sera entre le 11 décembre et le 26 décembre 2023 boobu la ñuy wax affaire candidature bu fekkee ni c'est les de du jeu et les règles du jeu n'ont pas été respectées pourquoi moi Mansour qui n'est pas de mon parti ki n'est pas de ma coalition me dit que tu dois coûte que coûte dire que est-ce que Macky Sall sa candidat ou bien du sa candidat teguñ ko fenn amul benn réew bu mu amee amul benn réew bu mu amee maintenant bu ñu ñëwee ba ci boobaa bu cappandaw nga ñëwee Macky Sall bu déposé candidature am c'est assez risques et périls nous suñu Benno Bokk Yaakaar bu fekkee ñun Macky Sall nekk na préparé ji sa mbër boo amee mbër nga dem préparé ji ko man am naa sama mbër maa ngi koy préparé su jour arbitre bi bu ñu ko disqualifié ñu ne disqualifié nañ ko mais loolu c'est ça daf lay arrangé mais donc à quoi bon ce débat il est inutile il est puéril il ne tient pas le pays en il ne tient pas le pays en état amul lu ñuy wax cest à gis nga réew mi dañuy toog fii microcosme Dakar waa bi di jëm man Saalum laa dëkk damay dem Kaffrine damay dem ci Makoyob damay dem luur damay dem Ribo di dem foofu réalité tey lu ñuy calculer ñoom naka la ñuy def ba vivre de soudure bu ñu waree am naka la ñuy def ma am ci naka la def ba mbay mi mun a dox naka la xale yi di amee xëy c'est ça les vrais enjeux. alors le président de la République dañu bëgg def dañu doon démocratie minimaliste waaw mais d'accord la loi et faire respecter absolument, la loi absolument à la responsabilité incombe au président de la République absolument. de faire respecter les dispositions de la Constitution et parmi ces dispositions de la Constitution il y a un imbroglio autour de l'article 27 xam nga xam nga foofu tamit les gens utilisent des mots pompeux il est la sa euh, chargé de faire respecter la constitution ça c'est du domaine administratif mais du domaine judiciaire ou juridique c'est des institutions qui feront respecter la loi le président lui-même il est soumis à la loi quand Macky ira déposer sa sa candidature c'est pas lui qui verra est-ce que sa candidature est légale ou pas légale c'est le conseil constitutionnel ça aussi c'est pas le président de la République qui dit aux gens kii mooy nekk candidat ou bien kii du nekk candidat c'est pas lui